allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah alhamdulillahi rabbil alamin mbokki jullit yi noo ngi màggal allah taala wa tabaarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi jéggal ñu sunuy njuumte waaye mu jéggal na sunuy rëcc-rëcc noo ngi jullitee salmal ci ar rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi sunu xutba tey mi ngi tënku ci min tawaadu'i nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa ni mu suufe woon ni mu suufelee woon boppam ak daraja yi mu am yépp mbokk yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk waaye ku nekk ci ñun na xam ni topp yàlla rek mooy liy jëriñ ak lu wax ji bari bari kenn ku nekk ci ñun am nga compte boo xam ni yow yaa koy regle ak sa borom kenn du dox sa digganteeg sa borom laysa baynaka wa bayna allahi tarjumaan amoo avocat amoo benn ku taxaw sa digganteeg sa borom du ab yonent lay doon du nit ku baax lay doon du malaaka lay doon du kenn yow cupp nungu na la yàlla binde woon nga nekk kenn noonu la yàlla di jàkkaarlook yow di la interroger te yow yaa koy tontul sa bopp mbokkum jullit kon jaadu nañu topp yàlla te roy yonent bi mbokk yi bir na ni ku nekk ci ñun war naa xam ni góor ñi ñu ngi leen di xàmmee ci seeni jëf suñu nee góor ñi nag mooy jaamukatu yàlla yi ponkal yi kilifa yi yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañu yàlla boole ci ñuy jaamu yàlla subhanahu wa taala te du ñu yëg seen bopp du ñu gis seen bopp gis nañ ñi gën a màgg ci ñi gën caare yi doonte seeni mbubb oyof na seeni melokaan rek lañ leen di xàmmee waaye yére bi du wax mbaxana mi du wax askan wi du wax fa nga bokk du moom mooy wax te nag kenn ku nekk ci ñun na bàyyi xel ni sa dund yaa ngi emprunté sa histoire ku nekk ci ñun li ngay dund mooy yaa ngi bind sa histoire moo xam jël nga big nga yaxal ko wala nga bañ koo yaxal waaye ku dee rek am lu ñu nettali sa ginnaaw maanaam say jëf dafay des waaw borom bi nee na wa naktubu maa qaddamu wa aathaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubin kenn ku nekk sa jaar-jaar borom bi ne dañu koy bind mbokk yi nit bu dee deseetul dara dara lu dul jëf yi mu jëfoon te ba ko fi jaamu yàllaam lay yóbbaale la mu baax la day dem la mu bon la day dem mu def ci yeneen jëfam yoo xam ne ñeneen mën nañ ci jiruñu comme mën nañ cee loolu su fekkee ki génn àdduna ku baax la woon fa lillahi alhamdu ay jëfam rek ay des bu fekkee safaan la woon ay jëfam rek ñoom ñooy des kon nit ñi li ñuy wax ci yow mooy liy nekk su fekkee yaa ngi gëm ni la ngay def yàllaa tax bu ñu waxoon sa ginnaaw lu bon fekk nga def lu baax it qu'importe bu ñu waxee ci yow lu baax ca defoo lu baax it qu'importe moo tax mbokk yi jullit ñi ñooy seede yàlla ci kaw suuf jullit ñi ñooy seede yàlla ci kaw suuf kenn ku nekk ci ñun ni nga mel jullit ñi ñoo koy wax foo dëkk nit ñi ñooy mën a qualifier kan nga yow jarul nga naan man la jarul nga naan nii laa fii laa jaar say dëkkandoo say mbokk bu ñu taxawee rek dinañ xam yow ban genre nga ci nit ñi est-ce que ku baax nga wala safaan nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk xam na ni jëf yi gën a metti gën a tedd moom la ko yàlla teg ci bindeef yi ba mu bindee aadama ba léegi li yàlla teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegu ko benn bindeef teewul loolu yonent bi yore jikko ji gën a rafet ci jikko yi yàlla jox ko mission bi gën a rëy ban mission moo gën a rëy yónni nañ la ci mboolem nit ñi wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas yonent yi ku nekk dafa amoon benn foo yem ibrahim am na fu mu yemoon nuux am na fu mu yemoon Moussa am na fu mu yemoon Isa waaye yonent bi nit ñëpp lañu ko boole yónni te ku nekk xam na ne mën faa dem dafa mu am fu mu mën a dem am fu mu mën a dem preuve bi mooy agsi wul Afrique preuve bi mooy presque li mu dugg ci Asie bariwul li mu dugg ci Europe bu dugg fa ay saabaam ñoo fa dugg kon risaala bu toll noonu matale te yonent bi war koo matale matal ko nag ci matalin wu rafet kenn ku nekk ci yéen seede na loolu wallahi waaw loolu moom yashhaduhu alqaasi wa daani ki sori ak ki jege ñoo ci yam ku nekk ci ñun xam nga ni yonent bi jottali na moo tax bu ñu ko tuddee nga ni sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne wa rafaana laka zikrak yàlla nee na maa la yëkkatil sa tur mbokk yi bi lor nañ ko lor bu ne ay mbokkam ñoo ko lor ay jegeñaaleem ay fameem ay dëkkandoom ñi ko gën a jege ñoo ko lor waaye ndax yàq na ci histoire dara bal da koo rafetal ñi ko gën a jege ñoo ko xas ndax yàq na ci histoire dara bal da koo rafetal mbokk yi ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jarul kenn di ko tagg lu ko waay wax waxit la ndax ki ko bind gën na koo xam moo ko taggal boppam ne ko wa innaka la ala xuluqin azim tagg fa la yem amul kuy tagg lu dul ci suufu wa innaka ngay jaar ndax boo nee damaa mën a wax damaa mën a tagg damaa mën nangam xam nga ne yàlla la bind te loo mën yàlla la ko dàq yàlla tànn nag expression bi gën a bàq bi gën a gàtt waxal ko ko mu jeex loolu mooy xam lu bari wax lu tënk lépp wa innaka la ala xuluqin adim mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk xam na ne ku suufe woon la ku wàcce boppam la te nag amoon na moyen mënoon naa am toutes les moyens qu'il faut li gars yi am waaye lan moo tax daf ñu doon jàngal kan mooy nit daf ñu doon jàngal lan mooy mission bi daf ñu doon jàngal lan moo ñu fi indi mooy mission de l'homme sur terre yow mbindeef mi sa mission ci kaw suuf lan la est-ce que wanewu la est-ce que bàkku la est-ce que fuggu la est-ce que yëkkatiku la est-ce que ne maay waaja la est-ce que yàlla defal na ma lu mag lu kenn mu defalu kenn est-ce que man rek la yàlla bind loolu loolu est-ce que bi amoon na temps di ko def te su ko neexoon mu wax ko te bu ko waxoon kenn du ko weddi ndax laa yantiqu anil hawa mais yonent bi dafa jël yooyu yëpp xam ne jikkoy mu daal di koy sànni fële suufee moo tax borom bi ne ko bul tiit ci say noonu wàcceel sa bopp rek wala tahzan alayhim waxfid janaahaka lil muminin yàlla ne ko lim lay topp daal mooy sa mbokk yeeg sa dëkkandoo yi lor bul bul wu bu leen tiit yoruñ sa bakkan sa dund lan moo tax wallahu yaasimuka min an nas yàlla nee na moo lay musal kon jarul ngay am problème ci tournée lu tax nga def ma lu tax nga wax ma non non xoolal yow Muhammad mu naa ah, yàlla ne ko doxal dox bi rek yow ce qui est important mooy yàgg jullit ñi wax fit janaahak lil muminin wàcceel sa bopp ci kanam jullit ñi ndax ci biir jullit ñi ci ëpp amuñu te nit bu néewee doole boo yëkkati yëkkatikoo du la jot boo tëjee sa néeg yore bëkk néeg du la jot bu la soxlaa mu ñu laa jot kon buur yi ñoo lay jot borom mbag yi yàlla na yonent bi noo yow doo genre boobu yow dangay waat ci ñépp yem ci yow jaam bu góor bi ak bu jigéen bi ak buur bi ñoo yem ci yow moo tax yonent bi sallallahu jaam da doon ñëw téye ci loxoom yonent bi topp ko topp ba mu sukk ne ko dama soxla woon nangam nangam yonent bi déglu ko après daal di koy tontu moo ndax ginnaaw kii am na ko melaat nii kenn ku nekk ci yéen lisaanu qaalihi mooy laa amul day toog jigéen ñëw ne ko dama la soxla jigéen jaam ne ko dama soxla yonent bi tourné ñëw imaginel bu doon kenn ci ñun wala kenn ci kilifa yi fii nan lay def est-ce que di ko jot non doo ko jot et pourtant Bilal mi nekkoon bëkk néegam ak ñu mel ni ñoom daawuñu tee kenn dañuy ñëw rek ne ko ah, am na ku lay seet de mu ne ne agsi su jàppande su jàppande mu ne na xaar sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko mission bi gën a rëy mooy say mbokk nañu defaru te boo bëggee defar say mbokk ñoo am moyens yu ñu la yàlla na ko wanzir ashiratakal aqrabin balaa ngay defari kenn defaral ñi nga dëkkal ba pare ndax sa mission ci sa kër lañ koy xamee ni nga mel ci jaamu yàlla sa kër lañu koy xamee ci say jabar ci say doom ñenn ñu bari foofu la ñuy xool kon defaral foofu ba mu beex waaye nag wax fit janaxaka ma ittabaaka min al muminin muhammad mu naa ah, mu ne ko wàcceel sa bopp ngir jullit yi la topp ndax ñuy mën di tiire ci yow ay leçon mbokk yi jibril da doon dénk yonent bi naan ko wàcceel sa bopp suufeel wàcceel sa mbagg kon yonent bi daawul xool portefeuille daawul xool fal ndax kuy falu moo la gën a rëy daawul xool dara waaye dafa yëgoon ni kenn la ci nit ñi yàllaa ko distingueel boppam te bu ko neexoon mu def ko keneen comme moom la ko def nag la jaadu mooy mu sant afala akunu abdan shakura lan moo tax du ma bokk ci ñuy sant lan moo tax du ma sant loolu moo nekkoon mbokk yi jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy nettali nee na benn bis yonante bi sallallahu alayhi wa dafa toog toog rek benn malaaka wàcc yonante bi musul gis malaaka bi xamu ko bi malaaka bi ne cëpp wàcc ci kanam yonante bi jibril na yonante bi mun a naam mu ne ko malaaka mi bi ko yàlla bindee ba léegi musul wàcc ci kaw suuf bi ko yàlla bindee ba léegi mu ne ah malaaka bi ñëw ne ko yaa muhammad arsalani ilayka rabbuk ne ko muhammad mu ne ah, mu ne ko sa borom moo ma yónni ci yow xoola xoola yàlla subhanahu wa taala jël malaaka yónnee muy ab courrier wala ku ñëw di ko indil benn mbir nee na malaaka bi dafa ñëw ne ko sa borom ñaari mbir la laaj bu neexoon yàlla mu laajal ko ko boppam na ko waaye dafa yebal malaaka yónni ko moo bëri na ko naan yàlla nee na ko yàlla nee na ma day wax waxul dëgg yàlla lu mu wax leer na lu mu wax leer na ñu bëri nañ ciy làqatu borom bi ne ko yàlla ne ko mu ne ko yàlla may kon loo ci xam rëy làmmiñ di wax rek lu du dëgg moo tax malaaka mi ñëw yonent bi toog yonent bi toogee mu ne ko sa borom nee na afa malikan nabiyan yajaluk am abdan rasula ne ko sa borom nee na ñaar boo ci bëgg mu defal la ko ndax mu def la buur nga nekk yonent te xam nga suleymaan amoon na ko malikan nabiya mu ne ko walla mu def la abdan rasula mu def la ngay jaam nekk yonent yàlla jibril wokk ko bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko tawaadaa li rabbik jibril xaritu yonent bi la xool lim ko conseillé ne ko suufeel ñeel sa borom allahu akbar mbokk mbokk yi xarit bu mel ni jibril ku ko am di ko déglu doo sànku yonent bi ne ko bal abdan rasula dama choisir ma nekk jaam ci jaamu yàlla yi waaye nekk yonent ban mbir moo gën a rëy jaamu yàlla amul ci kaw suuf yàlla yonentam yépp abda ibadina abdana loolu lay wax samay jaam sama jaam li gën a rëy jaam amul ci kaw suuf yonent gën a rëy jaam kon waxatuma ay wàllu yoog ay xulaas faat yi Sénégal di wax yooyu ay caaxaan la ay wàllu yoog lépp yonent ko ëpp doole te yonent bi gën a rëy ci yonent yi jaam la def boppam ndax xam na ni jaam la mbokk yi yonent bi ne man tànn naa nekk jaamu yàlla bañ a nekk buur nekk buur dafa bari yi ci aju imagine leen tey suñu nit ñi ñi fi nit ñi yaakaar jàpp na ñoom la ñoo ki buur a yem baa ñu gën a yées buur ñu baal ma ci wax ji parce que li buur di def la ñuy def moom la ñuy doxalee kenn mënta jot ci ñoom preuve bi mooy kër gu nekk ca biir baadoole yaa ngay jooy ñun mënuñoo gis sëriñ bi bu président ñooy gis ko bu politicien ñooy gis ko ñun xanaa bokkuñ ci billaahi waxuma ko ñoo koy waxal seen bopp kon def bi ñu def seen bopp buur ñu utal leen yi bëkk néeg utal leen i ay lu kenn xamul ay protocole moo tax nit ñi mënuñoo jot ci ñoom kon bu ñu defoon seen mission dëgg mooy mel ni yonante bi lu soxlawoo bëkk néeg mbokk yi ñun ñépp xam nañ ni yonent bi daraja bi mu am amul ku ko am ci kaw suuf jibril amu ko te jibril ku jege yàlla la laa malakun muqarrab beneen yonent am ko yonent yàlla ibrahim ku jege yàlla la waaye ndax moom moom man ñoo tolloo déedéet ndax huwa xalilullahi wa rasulu yonent bi mooy sayidul basar mbindeef yépp yonent bi seen sang kan moo koy weddi doo ko gis ci kaw suuf kenn du ko weddi même noonam du weddi ni mooy seydil basar ay noonam ñoo taxaw ni kii xool nañu biir xool biti xool fu ne moom daal ab sër bu amul biir ak biti la allahu akbar sër bu amul biir ak biti mooy lu la neex ngay woddoo yonent bi amul biir amul biti léppam benn la léppam benn la fa mu gën a làqatoo la gën a baaxee fa mu feeñee fa mu gën a feeñee la gën a baaxe fa mu làqatoo kon sër la boo xam ni amul biir sallallahu alayhi wa sallam amul biti kon ku bokk ci ummaam war nga jéem a mel ni moom mbokk yi xoola yonent bi suñ ko waxoon daraja bi mu am nan lay def ndax day yëkkati boppam ndax day guuxi lex day ndax day yëkkati mbaggam déedéet saa bu doon wax daraja bi ko yàlla may da ciy boole suufee allahu akbar da ciy boole xeeb boppam ab Abdullah ibn Abbas nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne innahu lam yakun nabiyun illa lahu daawatun qad tanajjadaha fi dunya wa inni qad ixtabatu daawati shafaatan li ummati wa ana sayyidu waladi aadama yowma alqiyaama lu mu ci teg wala faxr allahu akbar wala faxr xoolal yonent bi sallallahu nee na yonent bu yàlla yónni jox na la benn ñaan bu nangu ñaan nga ko fii ci àdduna ndax sa yàkkamti wala rek sa kii ndax ñu la yàlla bindee mais nee na man li ma yàlla jox muy ñaan dama ko téye maîtriser ko denc ko ba yowmal qiyaam ma ñaan ko yàlla mu fay ma ko ma ràmmoo ko sama xeet allahu akbar ixtabaatu daawati shafaatan li ummati moo tax mu ëpp lu muy ram mu ci xeetam nee na man muhammad maay sangu doomu aadama yépp kan moo ko mën a weddi wa ana sayyidu walad aadam wala xam faxla nee na waxuma ko nag ngir puukarew de bu leen tëb naan mooy sang bi mooy nangam de man bàkkawuma ko daawu toog ne eh jógal ana sayyidu walad aadam puusal ana Seydou wala da aadam buur ñëw mu ne ko ana Seydou wala déedéet daaw ko def da lay gën a suufee gën laa wàcc te xam ni suufeel sa bopp teew laa doon la nga doon allahu akbar kon yonente mbokk bi jàngal nañ lu bari mu ne wa ana awalu man an anhu l ard yowma alqiyama wala la nee na yowma alqiyama man maay njëkk a génn ci sama bàmmeel nee na ana awalu man tanshaqu anhu l ard yowma alqiyama lu mu ca teg wala fax nee na yowmal qiyaam bu ñuy dekki man may njëkk dekki waaye bàkkoowuma ko de <laughs> bàkkoowuma ko allahu akbar suñu amoon suñu gars yi fii kenn ñu wax ah sama may njëkk dekki mooy dekkal gars yi mooy na gars mooy nangam xoola yonent bi ni lu mu te teg wala faxar xoola ëppal na yonent bi boppam di puuk réew nee na wabi yadi liwaawul hamd ñi dàq sant yàlla man la ko yàlla jox yowmal qiyaam wala faxra puuk ko du ko bàkkoo mukk mukk nee na aadama ba ci suuf ñépp ci sama suufu drapeau la ñu nekk wala faxra waaye su mbokk yi kii jaruwoon mu bàkku nag jaruwoon ñu tëggal ko junjung yi bu jaaloo ndax lu waaye di am moo la ko gën a am ndax woote woo na ko ndax wane woo na ko déedéet mbokk yi mbokk yi ci yàlla yonent bi musul bàkku ak daraja bi mu am yépp musul yëkkati boppam ak daraja bi mu am yépp te ku nekk xam na nekk yonent rek doy na bàkk bokk ci ulul azm doy na bàkk nekk sangu mbindeef fi doy na bàkk njëkk a dekk nit yow yowmal qiyaam doy na bàkk yore drapeau li waa alhamdu doy na bàkku ñu njëkk laa ubbil àjjana doy na bàkku mbokk yi waaw mbokk yi ndax loolu lépp tax na àdduna yàlla bii mu mën a am bërëb boo xam ni ku fa deewee nga dem àjjana ci àdduna yàlla bi bu doon am fan ngeen yaakaar la war a nekk bu doon am bu doon am bërëb boo xam ne ku fa dëkk dee fa dem àjjana fan ngeen yaakaar la war ndax màkk nekkul dëkk bi gën ci dëkk yi wala dëkk bi gën ci dëkk yi mooy màkkata ummul qura lastu ansa is tuqarribu nii wa damu min farahi wa fi xijriha nasabu loolu la waxkat ba waxoon nee na ummul qura lastu ansa is tuqarribuni wa damu min farahi fi hijriha nasabu sallu ala muhammad sallallahu alayhi sallam màkkaa gën ci dëkk yi mbokk yi boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci dëkk yi preuve bi mooy fan la kaaba gi nekk inna awwala baytin wudia la lallazi bi bàkkate lu mu ca teg mubaarakan la ci yàlla teg bu ñu barkeel mbokk yi màkka boobu ibrahim moo ko sancaat loolu du daraja ibrahim du yonent du xalilullah kuñ fa njëkk tër bëgg laa rendi te nga yonent du ismail loolu du daraja mbokk yi kan moo yëkkati kaaba gi borom bi ne wa is yarfau ibrahimu alqawaida min albayti wa ismail luñ ca doon teg rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim yàlla nee na waaye xoolal sama ñaari maçon yi waaye ibrahim ak ismail ñu ngi yëkkati kaaba gi bu leen neexoon ñu way bu leen neexoon ñu bàkk comme ni ko maçon yi defee waaye bi ñuy tabax kaaba gi lañ leen doon wax rabbana taqabbal minna yàlla yàlla na nga ñu nangul innaka anta samiul alim yaay aji dégg yow yaay aji xam ibrahim bi mu defaree loolu ba mu pare di génn lan la wax rabbana inni askantu min durriyati bi waadin gayri di dara inda baytikal muharram lu mu ca teg rabbana li yuqiimu li yuqiimu salaat fajal afidatan min annaas tahwi ilayhim warzuqhum min alsamarat laallahum yashkurun yont yàlla ibrahim nee na ay sans borom sama famille indi naa leen ci dëkk bu amul dara amul ndox amul meññent amul mbay ci wetu kaaba gi nag ci wetu baytul haram yàlla xam nga tax mu def ko pour ñu taxawal julli ah ndeke kon suñu dëkkuwaay yi pour taxawal julli la rabbana li yuqiimu salaat ngir ñu taxawal julli mbokk foo ne del julli ku la gëm loo lu dul julli dalay nax trian la ku la gëm loolu dul julli tafukat la ku la gëm loo lu dul julli agresseur la agresseur yooyu ñoo gën a bon ki lay tere julli ibrahima sanc dëkk ba par leen ne rabbana li yuqimu salaat ngir sama sët yi sama doom yi taxawal julli kon yàlla fajal afidatan min tax wi ilayhim yàlla dama bëgg nga jël xolu nit ñi ñu bëgg màkka est-ce que amul loola mbokk yi moom moom mu teg ca warzuqhum mina samaraat beneen bi bokk na ci makka rëy gi mu rëy fiiha masjidul haram mbokk yi fa la kaaba ga nekk te xam nga ni masjidul haram jullee fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na taadilu bi salaat julli fa benn rakka wala ñaar rakka day toog téeméeri junni julli lu dul ci jàkka bu dul boobu boo duggee ci kaaba gi boo jullee ñaari rakka téeméeri junni julli lañ la koy fay allah ndax am na dëkk boo am loolu defe naa senegal rek la war a am de ndax moom moom dëkk boo xam ne ku fa dee dem àjjana Sénégal moom mooy Carrefour kemtaanu yàlla lu la jaaxal ñëwal seet ko Sénégal boo demee sax àjjana yàlla Sénégal la koy tabaxee léegi nga dégg ëllëg ko parce que gars yi dañu dëggal bi dañoo mel dañu jëfur nga ba da nga est-ce que ñuy ci seen bopp yi di wax dëkk sàngam ku fa dee dem àjjana foo ko teg doo ragal yàlla doo tuub waxu ceddo ji wax ju ruslu ji wax ju ñaaw ji ndax li amoo kersa nga di ko yëkkati salaam yi te xam nga ni yow li nga wax lañ la ko wax borom bi nee na maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid billahi ladi la ilaha gayr lu waaye wax di nga toogaat ak yàlla wax nag ba jàkkaarloog yàlla naan ko maane woon bërëb diw ko fa dee dem aja yàlla na la foo ko teg loo koy wax ruslu naa ñaaw na torop mbokk yi màkka lan moo fa nekk maqaamu ibrahim birig ba taxawa woon di tabax muul ba moo ismail xoola yonente bi nee na inna na wal maqaam huma yaaqutataani min al janna ak rukna diggante rukna ak maqaam ibrahima nee na ab ab or la wala lu ëpp oor ci àjjana ndax tax na ba tey ñu bàkkoo màgg déet ndax tax na loolu mbokk yi yonente bi ne benn yoon ak est-ce que alxuraan benn yoon wax na ni ku dee màkk dem àjjana ku ko xam wax ma ko yéen jànkati ku dee màkk da nga dem àjjana gi dégg ngeen ko fenn téere yàlla bi wax na ko xadiisu yonent bi ki yàlla yónni mu gën ñëpp waxu ko sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi màkka am na ñu tedd ñu fa dee dem safara abu taalib ku ko gën a tedd doo Quraysh la haashimi la maam la bàyyi la ci yonent bi moo yar yonent bi defal ko lépp xoola abu taalib bi mu gaañoo yonent bi dafa saalit jooy ba yàlla ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha yonent bi bu yoroon capacité dugal kenn ajjana abu taalib kenn du ko jiitu ajjana yonent bi su amoon daraja yi dugal kenn ajjana abu taalib mi nga xam ne yonent bi jooy na ko ñépp di ko dégg ci amul xasan yonent bi lan la wax nee na ahwana ahli nnaari azaban abu taalib wa huwa yantaxilu bi naalayni yuxleem minha dimaahu nee na yowmal qiyaam ñi gën a oyof mbugal nee na abu taalib ci la ñi gën a oyof mbugal ñu ne ko lan mu ne day sol ñaari dàll weñ dàll weñ yi de di baxal yuuram daal lu weñ ñi di baxal yuuram ñun nag Sénégal am nañu koo xam ne ku dëkk fa mu dëkk dem àjjana waaye yonente bi mënu woon indi Abu Taalib mu dugg Sénégal deewee fi kon kon mbokk yi am na loo xamante ni jarul texte du ko weddi xel a koy weddi nit di nga wax ba pare nit ñi xool la da ngaa war a rus bu fekkee bàkk bu ci jublu woon da ngaa suufeel mbokk yi ndax nekk doomu sëriñ wala sëtu kilifa dafay daganal ceew dem àjjana yàlla dafa teg mbir yi foofu kaay la ñu dem abu lahab alhaashimi fi naar abu lahab alhaashimi bàyyi la ci yonente bi fi naar abu jahl qurashi abu jahl <coughs> fi naar <coughs> fu mu dee waa Makka la ma nga safara walid ibnu mughira fu mu nekk safara nabiyullahi nuux ibnuhu wa zawjatu nuux doomam ak jabaram fu ñu nekk luut doomam ak jabaram fu ñu nekk waa Ibrahim papaam Aadar fan la dem du safara eh waaye mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam lan la wax waa Quraysh nee na leen laa yaatini nnaasu yowma alqiyaama bi amalihim wa taatuunani bi ansaabikum jaamu leen yàlla mënaluma leen dara bu leen toog ba yowma alqiyaama ngeen ñëw nit ñi di indi di jëf yu leen di yóbbu àjjana yàlla di leen yóbbu ngeen ñëw di làqu ci ginnaaw naan shérif laa maay setu Muhammad maa set laa man kay nangam surafa la ñun dañuy nax suñu télé yi da ngay toog naan shérif lañu <laughs> yaay setu yonente bi yaay setu borom barrière or ba dañu lay nax dañu koy nax ñi koy déglu dañu leen di nax mbir mi amul de mbokk yi Abu Lahab shérif piir la Abu jaal shérif la de fan la dem fu mu dem nga ne man sëtu yonante bi rek nga bëgg a sol sa garaam bu daami la ko ba mu baax rek toog ñuy yëkkati at di la jox nga teg ko fan foo ko teg sama am daawul laaj da ko rusoon ndax laaj baaxul tàllal loxo baaxul kon sëriñ si ragal leen yàlla surtout sëriñ yi ragal leen yàlla ittaqullah moytu leen li ngeen di woote woo maam yi di sama maam di sama baay askan bii laa bokk innaha daawal jaahiliya fa innaha mumtina dafa xeeñ dafa xasaw dafa salte ceddo moo koy def ceddo moo koy def ceddo mooy wax loolu ku xamul dara ci diine mooy wax loolu rus leen am leen kersa ci nit ñi am leen ko ci seeni borom am leen ko ci malaaka yàlla yi balaa ngay yëkkati kàddu rusal su fekkee li ngay wax leer na sama ama ko wax rus koo yëkkati bu dee sa maam a ko wax rus koo yëkkati gis nga ñi bind ñépp du lépp li ñu bind la ñuy wax dañoo amul xel mais ki am xel gis nga bindkat ñépp am na lu ñu bind lool da koy xool rek nga noppi nga jàppal borom ngànt fas nag astamaa nag ba mu ko bindu foo koy teg diw nee na ma maam diw nee na maam diw nee na maam diw nee na ku naa nga ku dee naa nga dalay nax mu kallaf nga jaamul yàlla boppam lay nax d'abord kon amul benn dëkk dee ci dëkk du sabab ajjana dee ñu yóbbu la ci dëkk du sabab ajjana ajjana la koy sabab mooy nga jaamu yàlla topp yàlla yàlla nangul la beneen bi mooy wërsëg waaye yàlla ni mu toll gàddul boppam wërsëg am biddee bu mën a toog gàddul ko nit ñi loolu xel war na ko nangu ñu ne ko nga di ko gëm amaa diw moom diw moo leen gàddul seeni wërsëg xoolal mu wax jooju nga xam ne yéefare sax rus nañ koo wax yéefare dem bii bu ñu leen laajoon kuy wërsëgal dañ naan allah te ñu ñuul kukku dee dem safara doon jaamu xeer jaamu xërëm bu ñu leen nee ku yore seen wërsëg dañ naan yàlla yow tey nga ne jullit nga di woote woo nangam nga ne diw moom a gàddul sama wërsëg waaye subhanallah waay waay waay ragalal yàlla waay borom bi ne amul benn mbindeef lu dul maa gàddul sa wërsëg ku ko wax Umar Sall déedéet alquran wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi yàlla nee na luy yukkat ci kaw suuf ba ci sax bi nekk ci kaw suuf yàlla nee na moo yore wërsëgam bu ma gëmloo mukk ne bàyyi diw moo yor wërsëg yi waaye da ngay nelaw nag dëgg-dëgg yeewu loolu loolu wax xale la nit war na rus di wax wax jooju beneen bi yàlla nee na allahu alladi xalaqakum suma razaqakum summa yumiitukum summa yuhyikum hal min shurakaikum man yafalu min dalikum min shay yàlla ne maa leen bind ñu ne ko waaw maa leen di xéewalal maa leen di rey maa leen di dekkal ndax am na ci seen bokkaale yi ku ko mën ci seen séddati ndax am na ñi ngeen yaakaar am na ci amu ci kon borom bi subhanahu wa taala amma yushrikun mbokk yi nañu wàccewaat mbir yi surtout sëriñ yeeg doomu sëriñ yi nañu moytu di xaslu seeni maam luy dafa ñaaw da ngay wax wax yoo xam ne bul foog ne da ciy rëyee mais da nga ciy tuutee da nga ciy suufee muhammad mënta yore wërsëgu kenn deewee màkka taxul dem àjjana kon dëkk bu mu mënti doon ku la ko waxal xamal ni njuumte moo ko jàpp wala seytaane nekk ci moom di wax dafa juum ku wax rek ñu tontu la naam xam nga tax ñuy tontu ba ba ñuy dee ku wax lu alxuraan nanguwul danañ ko dindi xam nga tax du ñu bàyyi jaamu yàlla yi ñu leen di nax kooku moom suñu bakkan la bu yeboo ñu rey ñu suba suba buñ ñu rayee dina am ku taxaw fii ne inna alhamdulillah waaye billahi ba ci xalif généraux yi ku wax lu alxuraan teggi danañ ko teggi fii ba ci xalif généraux yi laa wax ku wax lu alxuraan ñun loolu boo ñépp lañ ci yemale parce que waxuñu ngir tontu jëmm nit ki mais dañuy wax ngir li alquran wax ak ay borom xel lañ afala taaqiluun ana seen xel ba ngeen mën a gëm ni ku dee fii dem àjjana ana seen xel ba ngeen mën a gëm ni diw moo leen yore woon sëg ana seen xel c'est faux amul ku ko gëm dof nga allahumma ahdinaa fi man hadayt wa afinaa fi man aafayt wa tawallanaa fi man tawallayt wa barik lanaa fi ma aatayt wa qinaa bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadillu man waalayt wala yaizu man aadeet tabaraka rabbana wa taala falaka alhamdu ala ma qadeet sama sëriñ da doon wax lu am solo fan yi ndeysaan gis naa gars yi génne conférence boobu bu lu yàggoon la police bu ne woo nañ ko fa wallahi lazi laa ilaaha xayru police bu ne woo nañ ko fa interrogé nañ ko fu ne dama toog benn bis ma ñëw ne ko dañ maa convoqué mu ne waa ah, yoon baa ngoog de yoon bi daa bëri convocation